وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دندون سقط عند سرسارا لهور مؤمس دوما نتلنين لولو ديوان waaye bu la xam xam ni amoon nga yéene sax yàlla na yàlla fay sax waaye jëmm ji li nga wax fii léegi Baye Fall nar a ñëw làbbali ko sama xarit bii moom it ñëw toog Serigne Souleymane yàlla na yàlla yore bàyyi waaye jëmm ji di Serigne Pape. ku ñëw tey ci bisa bii da ngaa fay si bor waaye ku baax la as goro gi ñuy jot ku réew a xam mu na def ni ñeneen ñi def fuuy waaye def foo ko fekk ci yaram mu am leeru lool waaye baax lool waaye waaye tooy soxna xadi ñu ngi lay jigi nii mu toogee ñu rek la dangaa wax léegi lool sox sox sox waaye may nuyu baax sëriñ Faara bu Cheikh Abdoul Karim nga xam ne ba ci démb rek dama fekk mbooloo ànd ak Baye Fall yi toog mooy ku baax waaye di nuyu baax sëriñ Cheikh Muntaxa Mbàkke xam naa ne ba mu ne la jeex ni nga dugg see mu xam ne pap mu soo dugg si yoon mu xam ne ba du mës ta dugg si nii mu xam ne am na foo mu ne naa ko bàyyi mu a boo ko dee koo doy loolu mu ne Serigne Bamba rek la tey ñëpp di woote safar waaye nga woote safar ndax Serigne Bamba dama ne ku ne mën ngaa woote ami nit waaye Serigne Bamba bu wootee foo ay nekk dama ne li mu am xool muy ko nañ ko xam sëñ Bamba li ma am ay xool may ko ko ku bëgg a am li mu def li def ku def li mu def am li am ku deful li def doo am li mu xam nga ne ànd ak géej gi dem ci géej ànd ak bi na ci géej gi def fa sept ans sept jours sept secondes moom sëñ Bamba tegul ci baar jàng yi rooblo na mu soxla yi ren bi sa jaam ay asimete lay ñu ne jeewali ibbi sa is naa ne teewoo bi yaaw ni dama ne ci na mënu yow nag boo xewlee ñëpp nañu nañ ma may tuuti ma ñëw ndax koo ay nit ba du ñëw di nga leen sant di nga leen tër ndax ban wax na ko léegi man ngaa luyee siège man ngaa luyee baas waaye nit ñi kenn du leen doo jàkkaarloog man Serigne Pape nee na mu ngi ñaan ci barke Serigne Touba ku fi ñëw yàlla sa aju sant nee na xolam seet na guy ci nit nee na rawatina nag dëkkandoo yi nga xam ni ñu ngi takk ay rajo xamul ba xam am na ñuy noppalu ci biir waaye nee na yàlla ak Serigne Touba rek lañ ci. aywaay booy. nee na képp koo xam ne mu ngi lay déranger ba yaa ngi dégg a yi nee na mu ngi lay ñaanal ci barkeb màggal bi loolu yëpp yàlla na ko jëf. nee na ma waxal ko ko ñëpp ndax waa koñ bi aw nga seen fay. nee na koñ bi bëgg nañu ma sagal nañu ma sigil nañu ma dama rek lañu ci kon waa koñ bi jëmm ju tedd ji nee na képp koo xam ne yaa ngi ci koñ bi. ngay góor baa ngay jigéen baa ngay mag maa ngay ndaw na nga jàpp ni sëriñ wax nee na mu ngi lay ñaanal li nga bëgg yal na la ko yàlla defal ci barke sëriñ am si dañuy dem bu ñëwee ñëwee ak sëriñ wax ñu ko wax ñu ko ñuy déplacé yooyu juf rek tey ci suma rek jóge ñaari ñu ndax demi lu mu fi yëkkati pour yàlla yàlla ko suñu borom nga la sotti jàpp ñëpp ak doole seen xam laa naa

fii ku fi doon woy sa maam da ngay wëq say dàll. génn say or génn sa xaalis di ko teral. ñun ñu dañuy murit. Hmm. gëm sëñ Tuubaa ñoo ngi hmm. Faal téye ko ci dëgg la bëgg. ci Cheikh Ibrahima sëñ Tuubaa. lu hmm. taxaw di ko seetaan du ma ko naan. li ngay wax dëgg la. ndax borom xarak yow ma sàppi saa ñu dafa sànneel képp ba tey muxtaar fi seen sax. wallaahi ndeysaan daanaka muy junne ak ñetti téeméer ak ñetti lim bi lay boo nee dëgg la ba dëgg. gars war nañu fekk dëgg la nan la jox at yii Serigne Touba. génn goo gàmb de damaa bëgg lépp ñëw soo la fee ma wax li may wax ñu xam ne jox nii ñu koy dégg si Bamba moom Cheikh Fall mu ñaan mbokk kat ñi bàyyi kenn ngeen baal ñu am ziar bu baax a baax ku ci mel ni Baye Maysa Alaaji Seen Moussa baax a baax donc gars yi dañu bëri ci dugub ñu koy ziar moom it di ñaan yal na suñu borom defal màggal ko seet kuy mu ànd ak xéwal ak tawféex ci barke seen ba mu dolli cher ñoo ngi cubaat bu baax a baax nag bu nu sañoon dañu yaatal waaye lu ñëpp bokk loo ca day doy suñu diggante ak koy si Ndiaye moo def suñu xam ne ak suñu Pape Diouf mii ku nu xam na xam ne fan bàyyi ko ñu ñu ko dëkk ba jaari kër Cheikh bi dañu fàlla baat ñu ko jël kon xam ne boo xam ne fonk ko ak suñu tubaab ma doon seet suñu bambal suñu bambal seet ak suñu tubaab booba léegi ñu ngi teewlu kàddu yi cant yi ak yu gërëm yi baat bi benn baat sew na kon suñu baa si jalaaj suñu baa ay àggale wax li nga bëgg a wax su ko defee nga jox bàyyi fan ñu رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقهوا قولي sama xarit dama bëgg wax yii nga xam ni moom fi dajale ndax maanaam wet di moom du ragal teg gi du maanaam dégg nga li waaw sa dal sa te lii ñu doon def bu xamul mën naa jàpp ne tey nag ñu dajaloo la rek waaye li waral lii defar ndax Serigne Moussa Ka daa wax na. Hmm. dégguma la. Serigne Moussa Ka dañu. ah maa ngi lay dóoree. ku màggal bésëb hmm. la nga kon bu weeru safar teroo. ñun hmm. sunu njëriñ. ak li ñuy dimbali. mooy nuy fàttali sunu bopp lu nu fàttewut. mooy di daje di naatal sunuy xol. nit ñi gën a xam ni. sunu mbég mooy Serigne Touba. may ñëw. ki nu bëgg ki nu yaakaar ki nu dimbali ak ki nu sagal ak ki nu sukuraal ba duñ daj gàcce mooy Serigne Touba kon bu ñu liggéey ba 18 safar bis ba rek ñu a dem màggal yi njukkal li ko des yàlla daa may Serigne Touba yett yoo xamante ni bii ñu xamante ni bii ñun ñoo ko dundee ñun rek. xoolal weer teraw. da ngay ko tudd mu rafet. di defaree ginaar di xew. door a des Touba boo demee ñu dalal la bu baax. nan la sukkal fii sangul fii sóorul fii te doo i ñaar. loolu nag ki la ko defal. boo koy wëlëg nag bés yamal xaaral ak baax lii ma la ko fii ci àdduna mu jàngul lu ñu koy gis. da ngay sol lu rafet. di lekk lu neex. te kenn du la bon wax te boo bëggee ñibbi ñu la nga paas jox la loolu bu fi sëñ bi yemoon ak ñun ci doy na ko yàlla defal nag ñun ñëpp ñoo ngi koy yëg xéwal xéwal yee bay moo bari moo tax Serigne Pape Diouf ñoo ngi siyaar bu baax wax jàmbaar gi daa wax lu rëy daanaka fi ñëw da fay si mm-hmm. waaye ñëwul ngir lebal la borom. man na maa wat ci sëñ Tuubaa safara gi nu ne bari na ñu mel ni man sama njëkk ak ñeneen ñu dugg ci sa biir néeg bii nga defal leen defal leen ba noppi def dara ci seen i poos loolu nag bu mu demee ba toll ci lii nga toog waxuma ko du nu ay góor kër Mbay Fall laa bàyyi boobu balaa war na dal ma dama ne du ma muñ bis bii ndax ni nga dund ak moom Serigne Cheikh Mbacke mii mënu xamale ak yow di sët Serigne Bassirou Mbacke di bu baax di jëmu di war a ñoo xamante ni bii ñàkkul yoonu maamam fi Serigne Touba bëgg fa teg tànka moom Serigne Cheikh as gor la jullit la yaaram la nit ku baax la oyof lool oyof lool te woon na diis mu ñaan ci yàlla sa aajo faju ba noppi mu waroon nga waroon a génne jox ko moom mu génne jox la loolu jafe na ci ci jamono loolu nag jikkooy sang la loolu jikkooy wala yu la jikkooy yaaram la jikkooy nit ku baax la waaye bis bii képp ñëpp képp koo dund waroon na la xewal bis bii ñu sax Serigne Touba dani ndax gii ma dem naa bañ def yaa bu baax ndax lu ma yàlla terale ci bis bii dama ko terale damaa bëgg nag ngeen ñëw sant la ma yàlla sëñ Pape baa xam nga ni ñun sunu yàlla doyoo ko dara waaye santuk Serigne Touba yàlla da koy nangu. dégg nga li may de yàlla da koy nangu bu ñu santalee yàlla Serigne Touba ko mu jël cant yi boole ko cantam jox yàlla yàlla nangu ci la ñu am ngërëmul yàlla de. ëlbatiku nag nga boole gëm jàmbaar joo xam ni Sénégal àdduna ñëpp ko amal ñu ko muy Serigne Sall. borom jurul borom jàppandal ak ndookaan géejaan wax ni ku dul yàlla sunu borom kon koo ma yërmande ci jaam bi moom Serigne Sall. ëlbatiku ne Serigne Dame Ndiéguène gane si ko ca Thiès li mu xam dem moom Alaaji Maalik di njaboot bokk ci ñoom ñu doomi moom Alaaji Ndiéguène ca Tiwaawan nga xam ne yàgg na ma ànd ak may sa jóg bii di dem kër ànd ak sa ñëppul kërin di dem seen kër tegees muy kilifa bu mag xam naa tàggane Serigne Saliou waxtu benn jot ñu indi yi mu war a ak Serigne Saliou Mbacké nee na ñu góor ko raxasu doon mu ne ko Mbacké ndax mën naa laa ñaan dara ci bokk ci ma dara bokk ak yow na mu ne ko ana lu doon mu ne ko damaa bëggoon maanaam jullit yi yàlla yi ñëpp dem àjjana man ma demal leen sawara nga dem sawara ba Serigne Saliou Mbacké ka tedd ak mbaax ma ne muñ ak ragal yàlla ak baax tax jëmm jàpp na la waat daal di gën kaale ko def ci jëmm jëmm ko sàllaaw gëm ko sàllaaw gëm ko de daal di man Saliou mi nii bus na maa jamono fekk koy fàtte dem sawara mënoon na noo doon jullit sëëdu nu jëf jëfi jullit sëëdu murid nu sant bàyyi Sëriñ Saaliw mënunu noo doonu jullit sëëdu nu jëf jëfi jullit sëëdu nu murid nu sant bàyyi Sëriñ Saaliw man de tey ji sant naa Cheikh Ahmadou Bamba jadd naa moom mi nu fagul ajana moo nu booleeg Sëriñ Saaliw علي في كل زمان رضا الكريم يجر من ما دام أمس الودر لسند باي سنسان سند كسر بلوتنات ورنا يا ربنا xanaa dama yéene danaa jaajëfe sëñ Saali. waaw xam nga loolu daa mënut a ñàkk ndax saxaar bu jubal airport bi. Serigne Saliou Mbacké yéen a ngi ci njaboot bi laa lay wax li mu def ci gone yi wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman